chimère yow amagoo ñaareel di ah ah ok benn nga yor ok d'accord lii coowal wujju la ak morom jeeg wii Gàmbi la jóge doomi Gàmbi la ñëw sëy si fii ci Sénégal dégg nga wujju wi nag jàppante nañu ñoom ñaar xeex bu méttee métti wujju wi tuumaal na jeegu Gàmbi bi ne daa dagg noppam damm tànkam jéegu Gàmbi ba nag guddi yi ñuy wax nii tëj nañu ko kaso juróom benn weer la war a tëdd xeex bu meloon ni tulleeg màlle buñ sukkandikoo ci doomu gambien bi doomu gambien bi xamle na ne baayam kenn du moom ndax daa mel ni kon ku ca ànd histoire bu doy waar laa lay wax nii président kéemtaane ñi laan ma nekk ca kaas ba sax moo siq ak doomu gambien bi waxtaan wi xale bu jigéen baa ngi.
wax li nga xam ne moom laa gis bu ma jógee ko sama sëy ñëw seet sama yaay mi nga xam ne dañ koo tëj ci kaso bi. bu ma ñëwee fekk si ki mu doon joteel di wujjam ñu ne dafa xeex ak moom dagg nopp yi damm ñaari tànkam. loolu lañ gis ñu def ay photomontage yóbbu ko tribunal ñoo ñu xool si loolu mu ne dañ koo sot dóor ko gaañ ko ak sama mag bu jigéen ak jëkkëram yëpp loolu lañ wax. léegi sama wujji yaay waaw moo waaw moo doon xeex ak moom ak doomam ak jëkkëri doomam. ñoo ko dóor dagg noppam yi damm ñaari tànkam mais yéen gis ngeen mu dagg nopp bi.
déedéet nopp bi man bi ñuy xeex fekkewu ma ko waaye bu ma ñëwee man maa ñëw am na 5 mois ma ñëw gis nopp bi daggul man ci ma ne man nag lu tax lii nu mën a demee ñun nopp bi daggul ba pare ñu dem di ko yóbbu police di ko ci tëj te nopp bi daggul tànk yi damul ndax tànk yi damul mais bi su fekkee damm na tamit war naa mën a am loo xam ne bu fekkee ne ne tànk yi damm na wala nopp yi bu daggee doo fa fekk nopp yi ndax nopp yi dagg ba ñëwaat ko soo ko gisee war ko xàmme nopp yi daggul loolu di wéy di continuer ñi di ma menacer si biir kër gi ay rakam ñëw si kër gi di ma saaga ne dañ may rey léegi yow. moom bi mu porté plainte sa yaay mu yàqu. ah plainte bi demul police.
plainte bi moom déedéet jaarul police procureur lañ ko yóbbu.
dañoo yóbbu plainte directement procureur.
waaw.
léegi ñu jot ñëw jël ci sa yaay.
waaw léegi sa yaay moom jugé nañ ko.
jugé nañ ko ba pare ba tëj ko juróom-benn weer.
ñu tëj sa yaay ak 6 mois waat waaw juróom-benn weer waat ak si jours.
ak sursis lañ ko tëj.
waaw donc sa yaay instant yii mu ngi ci kaso bi.
waaw mu ngi ci kaso bi. waaw.
léegi yow durant juróomi weer yëpp defu leen dara.
déedéet defuñu dara non sama rakk yi nag ñëwoon nañ fi waaye teguñu woon ko waaye.
comme par exemple durant juróomi weer yi demuñu ci justice.
déedéet non noonu defuñu dara ndax amuñ doole. waaw amuñ doole ndax ay xale yu ndaw lañ sama yaay njaboot gu ndaw la jur man maa ci gën a mag fi mu nekk bu paasee ki ñu tëj man maa ci topp. léegi ñun xamuñ nan lañ war a def ndax dooñu doomi dëkk bi ndax sama yaay man dama li ma ko gisee damaa foog ne ni mu nekkul doomi dëkk bi moo tax mu demee ni ndax dañ koy jaay doole amul xaalis moo tax ñu jaay ko doole sama yaay gambien la ah gambien waaw gambien la ñu ñëw jaay ko affaire yi am xaalis te dañ ko naan tëkk di ko wax ne ko di nga xam ne borom càq du xeex ak borom baat kese dinañ la teg benn place dañ ko yàggoon te loolu bu ñu ko defee ba léegi dañuy wéy di ko gaarawaale njabootam bur bu set ñu naan ku fi yëngu dinañ la teg fu ñu teg sa ndey mu ngi ca kër ga sa papa lu mu si wax sam papa waxu ci dara mu ngi toog parce que moom tamit moom laa gis ne moom tamit daf cee ànd moo tax ñu tëj sama yaay ndax biñ ko ooyee laaj ko dafa ànd ci loolu ne looloo am ñu yóbbu biñ ko biñ jàppee mer bi yóbbu ko ci yóbbu ko police yi foire biñ ko ooyee téléphone ne ko ñëwal daa bañ ne du ñëw te boobu dañoo waxoon ne bu ñëwee rek ñu bàyyi ko mu ñibbi ba pare ñu jógee ko fa dem ci àtte bi.
waaw léegi yéen sa papa mi ngi see kër.
waaw.
ñaar jabar lu tax nag lu tax réglé wuñ ko àlam yaabul yooyu si biir famille mu yem ci biir famille.
waaw lu tax réglé wu leen ko ñu yóbbu ko ba justice te seen papa mi ngi si kër.
waaw loolu nag moo tax mu dem ba ci rajo yi dem ba ci télé yi lim ko réglé wul si biir këram moo tax mu mën a dem ba foofu ndax ñun jaboot gi léegi dañoo sonn dañoo xatt dañoo sonnal nañu fi mu nekk ni sonal goo xamante ni sama yaay mi tëdd ci kaso bi sax moo ñu ëpp jàmm fi mu nekk nii ndax ménage yi bëri na dañuy rey yi bëri na lenn teg tokkuwante yi bëri na ñun nag ñu ngi ñaan dimbal fi mu toll nii képp koo xam ne mën nañoo dimbale pour ñu génn kër gi bala ñu ñaa def loo xam ne ni dafay ëpp loxo ndax lu jàpp sama yaay dem tëj ko mënuñ ci dara mën nañoo def leneen loo xam ne moo gën a ñaaw loolu nopp bi daggul dara jatu ko ma nga ne la sa koñ ba daam moom la génne wane ne moom dañoo daggee ak photomontage léegi certificat médical boobu ban hôpital moom la ko wut.
man nag leeruma ban hôpital ñoo ko defal.
yéen gisu leen certificat médical.
ñu demoon ci kii bi ñoom man gisuma ko man fekkewuma xeex bi damaa ñëw seet si sama yaay si kaso bi. ma ñëw fekk xale yi tumuranke sonn pa bi faalewu leen toppatoowu leen man tim ma ñëwaat toog wax ak sama jëkkër mu bàyyi ma pour ma toog. organiser sama xale yaay defal leen ndax jooy yi ñuy jooy metti na ma ne xaaral ma téye leen. ba sama yaay ki nga xam ne moo nekk si kaso bi bu génnee ma doog a ñibbi.
léegi sa yaay ma amoon mbokk Sénégal kii amoo ko benn mbokk.
ah fii mu nekk nii moom amu fi càmmiñ ndax nit boo juddoo ci dëkk bi sa doomi nday nekku fi sa doomi baay nekku fi amoo fi dara amu fi kenn xanaa dëkkandoor yu baax rek la fi am te dëkkandoor yi tim taxaw nañ fi seen tànk lu ñu mën def nañ ko dem nañ ba tribunal bëgg a seede mayuñ leen fu ñu seede ne pour ñu seede mayuñ leen loolu te lii niin xale bu jigéen bi nga xam ne moom la oo ne ko nañ dem dóor sa ñoom tante fi xeex bi commencé sax loolu wax ma ko xale bu jigéen boobu bu ngeen ko bëggee sax mën ngeen ko mën nañ koo indi mu ñëw toogal boppam wax li nga xam ne moom la demee ndax moom moo nettali ne yaayam moo ko fekk sa mbedd ma ne ko kañ dem dóori sa ñoom tante mu ne ko lu ñu ma def Lu doomam waaw jur.
waaw du doomam bu mu jur dañ ko koo jox dañ ko koo dañ ko koo tuddee sédd ko ko bi problème bi amee ba pare dafa réccu moom mu ne man tante ji moo ko wone ko nañ dem dóori ñii mu ne ko lu ñu ne def bañ leen di dóor mu ne ko ne nañ dem su doon sa yaay doo ko wax nañ dem ma dóor leen kooku tamit mu jox ko kur moom mu téye bant bant boo xam ne daf ko daaj pont ba mu fees mu ñëw fekk sama yaay si biir néegam di ko ko dóor si ah ñoom dañoo yàgg di xëy si biir kër gi.
waaw dañoo yàgg nag moom di jubawuñu woon daal si biir kër gi bi ñu fa nekkee te léegi sa papa mi si biir kër gi.
mu ngi si biir kër gi waaw mu ngi si biir kër gi nag waxul dara mu ngi si biir kër gi waxul dara te moom si boppam fi mu nekk nii bi li amee ba léegi mu ngi dund dundam jabaram mu ngi dund dundam si biir kër gi waxuñ dara ba ma génnee wax bii mu jëm kaw ñu commencé di ma ménager naan dañ may rey dañ may di sama papa sax si boppam wax na ne moom mu- fi mu toll nii ba may ñëw fii fekkut ko fi ma nga Saalum te- te dafa am benn dëkk bu mu dem léegi woote na téléphone ne man bu ñëwee daf may tëj man nag mooy sama papa lu mu mën na ma ko def saagaw ma ko xasuma ko waaye damay ut solution ndax sama yaay dafa sonn damaa bëgg ko dimbale mu am fu mu dëkk xanaa xanaa euh, ambassade Gambie bi bi nekk biir Gambie teewal fu njabooti Gambie xanaa di nekkul di déglu li nga xamante ni mooy tës bi di déglu li nga xamante ni moom la ñuy def njabooti Gambie si biir dëkk bi lii métti na xanaa lu sama yaay nekkul Sénégal damaa foog ne loolu moo tax ñu di ko def nii métti na trop li ñu koy def léegi nag kër gi fan yii nii li ma li ma génnewaat mooy affaire yi jaay kër bi ci génn ndax ndaw si mu ne ba ba ba tem bi jàllee mu ne xajut si koñ bi dañuy jaay kër gi jox ko wàllam jox ko xaalis mu dem tabax seen kër te fi mu toll ni sama yaa ngi ci kaso génnagul buñ jaayee kër gi man ndax ñun dinañ am dara si kër gi wala duñ ko ci am te kër gi sama kër papa la ñun ñëpp a ko bokk këri famille la loolu moo tax naka lañ koy jaayee jox ko wàllam te borom kër gi deew deewul.
deewul deful dara waaye léegi ñun ñi ñi ngi wax naan war na koo jaay ak waru koo jaay man nag loolu laay laajte ndax war na koo jaay waru koo jaay waaye ñun Sama xëccoo borom kër gi moom dafa ànd si jaay bi.
ah moom de ñun dañoo toog rek gis ay courtier di dugg di génn ñu ne dañuy jaay kër gi léegi naaw loolu ba mu ñu laajtee affaire bi bañ nañu wax ne ndaw si moo wax ne nañ dafay génn koñ bi nañ ko jox xaalis kër moom mu dem tabax këram léegi nag kër gi bu fekkee daf koy jaay man kër gi jaayat ko woon léegi bu ko neexee na ko jaay sa alalam la waaye sama yaay moom fu mu dëkk bu ñibbisee sax du dëkkaat si kër gi ndax lii sonal njabootam ginnaawam moo koy sonal moo koy sonal ëllëg bu ñëwee ndax dafa am source te bu ñëwee gaarwaale yi ñu dëkkee ci biir kër ga mën nañ koo dëkkee waat ak mën na koo dëkkee waat ak ndaw si te boobaa dina métti trop te kon dañuy wax naan maanaam moom mënul ñibbi Gambie wala.
déedéet toog fii moo koy gën.
du déet du mën a ñibbi Gambie ndax fii daf fi yàgg di xale la fi sëy si ba léegi am fi jur fi njabootam yëpp njaboot yi ñu ngi fi ñii a ngi jàng ñii di jàng métier du leen fi mën a bàyyi dem ñibbi Gambie te xale yëpp du leen mën a buub yóbbu leen Gambie dafay métti léegi torop bu fekkee Gambie yoo xam ne dañu ñëw ñàkk intervention.
waaw am nañu fi ñëwoon nag temps bi nga xam ne ñu ngi def seen tribunal bi ñooñu ñëw nañ fekk na boobu ñoom sax ñu ngi leen tëj ba pare waaye bi ñu dañ leen tëj fukki fan ak juróom doog leen sisé ñooñu ñëwoon nañ fi waaye fekk nañ boobu ñoom mënuñu fa lijjanti dara ndax dëkk boo fa dëkkul xamoo fa kenn amoo fa këyit amoo fa dara mënoo faa lijjanti dara nii lañ toogee di leen xool ñu def seen dogal def lañ bëgg a def biñ demee ba dégg naa dem nañ ba gisanteeg ambassade Gambie ba waxal ko mu ne leen comme que si affaire yi nguur la nekk affaire yi procureur moo moo moo moo moo ci dugg bàyyi leen procureur mu doxal li mu war a doxal ba pare ñu seen loolu la ambassadeur Gambie.
waaw ñu ne loolu la leen wax man ba ñu ñëwee ci Gambie bañ ko waxee ñun loolu la ñu wax ne la leen wax waaye ñoom boobu xamaguñ ne nopp yi dagg na war a daggul ndax ñoom dañoo sisé loolu rek waaye bi ndaw si ñibsee ba génnee nopp yi lañ gis ne nopp yi daggul noppi daal dara si dara sikku si ku mu neex nga ñëw fee nga ñëw ko dafa ëpp doole rek wan ko quoi.
waaw da ko ëpp doole wan ko ne ko maa la gën a xam si dëkk bi maa la fi gën a dëkk maa la fi ëpp mbokk maa la ëpp xaalis waaw loolu la ko tëjee waaw ñun fi mu nekk nii sax fi ñu toll nii sax buñ mënee génn kër ga sax léegi dañ koy génn ndax menace yi bëri na borom kër gi ànd na si rakki ndaw si daf fi dañ fay dugg nu leen neexee même sama yaay ba xeex xeex bi amee sax rakki magi ndaw si nga xam ne mooy seen mag ñoom ñëpp daa ñëw ci kër ga di dóor sama yaay ne na génn kër gi ndax dafa joteeg rakkam ba kooku daf daj bañ gaañoo ñoom ñëpp bañ gaañantee rakk ji daa dem si seen kër tëdd man sama yaay na génn sama yaay bu génn fan la Daa fekk sa yaay prison.
waaw maa ngi ko fay seeti Lu mu lay wax.
waaw bu ma ko faseetee lu gëm yàlla rek def na am lu yàlla dogal moom kenn mënu si dara man defuma luñ may tëjee waaye bu fekkee sama juróom benn wéri dëgg la yàlla ma yàlla àtteeg ñoom moom loolu rek la may wax waaw moom loolu rek la may xamal waaye daal pour mu ñëwaat si kër gi nag gënalu ko waaye amul fu muy jëm nag saa yi ma ko ne yaay boo génnee nooy def mu ne ma xaw ma nu may def ndax aw ma fu ma dugg aw ma fu may dëkk sama njaboot màggagul te taabal laa daaj di ko jaay si buntu kër gi di jaay gerte di jaay ay mboq loolu laa yaakaaroon loolu laay dundee taabal boobu ba tey nag ñu ngi ko continuer sama rakk bu góor bi doon jàng ñëw moo bàyyi li mu doon def yépp dem jël taabal ji di ko jaay sama rakk jigéen di ko saafal gerte muy jaay loolu la continuer moom la ñuy dundee si biir kër gi suñuy génn jënd si la ñuy sox faj suñu soxla si la ñuy def léegi yépp sama rakk bu jigéen bi nga xam ne dafa feebar asma la yore xaw ma lan feebari xol mu ngi koy daaneel bët bu set saay bu ko daanee bu xam si biir kër gi sax kenn du ko faale kenn du ko seet bi mu sama yaay tëddee kaso ba léegi jëliwul rendez-vous te sama yaay ko daan yóbbu hôpital Fann muy jëli rendez-vous xale bi feebar baa ngi ko sonnal mu ngi sonn ba bëgg a dee mënuñoo lijjanti loolu suñu dara doyul si biir kër gi ñu teg si ñëw di ñu ménager ndax naan dañoo dem ci télé bi di wax thème bi ndax ñun dañoo yabaat lii jeex na bu yàgg jeexut ndax sama yaay ngi ci kaso ba génnagut te ñu ngi woy di ñu ménager te source bi ti mu ngi fi bu ñëwaatee nit ñuy def si kër ga noonu duñ ko ko fa defee dafa mën a dund ak ñoom léegi nag ñu ngi laaj solution ñu ngi ñaan tamit képp koo xamante ni mu ngi si mën a mu ngi si mën a dimbale si lii ñun balaa sama yaay di génn sax ñun fu mu toll nii soxlaatuñ ci kër gi fu mu toll nii toog fa ndax ménage yi bëri na paa bi daf cee ànd waaw xasuma ko nag damaa wax li nga xam ne moo am li am laa wax waaw.
Choumer dégg nga nag maanaam li nga xam ni.